ausbillahi min asheytaan irajim bismillahi irahmani irahim alhamdulilahi rabilalamin arrahmani irahim malik yawmi din iyaaka naabudu wa iyaaka nastain ihdina siraat almustaqim siraat allazina anamta alayhim xayril mahdubi alayhim wala dalin amin maa ngi nuyu ñëpp di siyaara ñëpp di jiital ci nuyoo bi Sëriñ Muntaxa Mbàkke xalifa général de Mouride man maa ngi tudd Abdou Latif Touré ñu koy wax borom Kéemaan waaw dañ koo jàng te aussi ñun suñu maam wàll yi kamal la woon ñu koy wax sëñ Moxo Jamara mi ngi dëkk ci boori Cilmaxa googu ñu ngi wax naan Sëriñ Tuubaa ci boppam waxal nañu ñu maqaamam xutbaani yi bi mu duggee ci moom génnaatul ci loxoom ba keroog ni muy génne àddina nee na li muy nekk ci géej gi li muy julli lépp heure bu masaan gestu di jàkkaarloo sëñ Moxo Jamara ci ginnaawam ci la ci laa jàngate sax xam ne nit mën naa am maqaama xutbaan yu dem ba ci biir sunu borom nu ngi ko jox kaneen moo tax muy kër Muxja chaque année ñi ngi fay def genn màggal gu mag sax di fa màggal sunu maam jooju mu doonoon wali kamaam doonoon ci waa Kajoor ñooñu ñëpp doonoon koo xam ne si kun ràññee woon woon xam ne bi mu sanc kër Muxja googu ñu ne bi mu koy sanc rek fu wàcc na fa ñeent fukki kaamil li wër këram googu kon loolu doy na daanaka daal suñ ko waxee waaw xam-xam bi ñi ci gën a faral di ñëw suñ mbokki jigéen ñi la ñoom ñi nga xam ne ñi nga xam ne dañoo am jëkkër bëgg seen jëkkër bañ amaat jabar walla ñu bëgg luñ ko laaj mu jox leen wala yu dara wala suñ mbokki étudiants yi nga xam ne dañuy faral di jàng war def ay ki ñëw di ñu ci ñaanloo pour mën a jàll ak yu demee noonu daal wala def baga yu demee noonu bu ñu koy def dañuy ñëw di faral di ñëw ci ñun lu bari di sàkku ci ñun lu ñaan te ñu ngi ci am résultat bu baax a baax a baax man seet moom yor naa ci ñaar dinaa seete ci téere yi dinaa seete tamit listixaar fanaanook yooyu yëpp dama koy faral di def te aussi tamit ñaare ku ma ko defal ku ne dama ciy dégg mu dem ba naan xanaa kii moom du nit ak yu demee noonu ndax seet bu sell ak bu aw yoon ak ni mu lay gisee daf la yéem ba nga yaakaar nit daa ñëw di ma nettali ci yow dara yu demee noonu fekk demewul noonu seet gee demee noonu rek mhm. wóolu nañ ci suñu bopp daal moom. yi ma xarañ bari na lu ci mel ni sport muy football wala muy bëre yu demee noonu wala nit ami jafe-jafe ci liggéeyam yu demee noonu yëpp dama koy def. wala mu am faru rab wala yeneen ak yeneen li may liggéey daal bari na wala kun liggéey mën naa koo dindi ci lu gaaw a gaaw ci suur suur bi mën naa ko cee dindi koo xam dañ koo liggéey ba jàpp yooyu yëpp dama koy def sport équipe boo xam ne si boole nan maak moom ba may liggéey ak moom tey jii bu ñu tegoon penalty sax su ma neexee du dugg ndem soom na suñu borom loolu yàlla may na ma ko te xam naa ko bu baax a baax euh, ku ma soxla mën na ma woo ci 77 928